ñun dañoo sonn dañoo tàyyi liggéey dong lañ gëm ci suñu xol yi te bu ñu toogee yaakaar suñu palaat bi ñu dikk nangu palaat bi di ñu encaissé loo di ñu fayloo wala parisol loolu la ñuy laaj fa yoon la wala de njaay mii ci la bokk ñu ngi ne taaw mu ngi ni taxaw. ci ci ci kanu la ci ci bu ñuy jaay ci marché bi. oto yu bëgg lu ma ci xaw ma ci dara man liñ may buñ ma fa jàppee liñ may fayloo damay fay rek ndax ju bëgg a jot sama bagage. waaw fan lay jëm nag laa bëgg a xam. waaw. buñ la di nga joxe kayit noonu. joxuñu ma dara. duñ ma jox dara. est nga ne fii mbedd na ma ne mbedd la du jaayukaay. waaye ñun ñëpp fi bokk di jaay di fi suturloo aayuwun déglul aayuwun kenn ndax daanaka nag suñu jaay suñu bopp yi la ñuy yenu di jaay ak ci cong-cong ji xam nga ko am pexe doo fi laal ko am foo toog di jaay doolal marché occas gi oto it nappaaji sam njaay sandarma yi di la didi di la dugal ci ruq bi nga yor ñaar téeméer yaa ngi ca yaakaar di ko faye soxna si hmm? déglu loolu kum neex doo ko def su sañoon dama yóbbu maa nga sa yow sama caabi jaay maa ngi lay déglu ñu ngi lay gërëm ci fit bi nga am wax li nga soxla te loolu sax citoyen bu ne danga am droit boo gisee lu la metti ak lu dul yoon nga wax ko ci dëkk bi parce que ñun bu ñu fi nekkee man mii di ministre wala kii di député wala keneen di président lu ñu fi nekkee yéen lañ fi nekkal parce que askan wee tax ñun ñu ñu am ni ko defee noonu la nit soo nekkee ci réew ñu lay laaj dara te xamoo li ngay laaj lu tax ñu di la ko laaj yoon la nga laaj te li may joxe nii fan la jëm te ñu leen ci lu ngeen di ci continuer ku leen laaj lépp lu mu mën a laaj na leen na leen jox kayit ngeen jël turam ak téléphone am mu nga xam ne diwkat laaj na ma mbir lii yéeg lii ak lii ci activité bii may def loolu moom dañ leen ci gën a jaajëfal ndax nit moom citoyen boo newee ci réew muy impôt muy taxe lu mu mën a doon bu ñu la ko laajee dañ laa war a jox këyit loolu moom dëgg la réew mi ñëpp dañuy góorgóorlu ak di wut ci lu ñu jàpp te loolu mooy Sénégal Sénégal ñun xamuñu xëy toog li ñu xam mooy takk jóg xëy wuti jigéen joo gis mi ngi wut lu mu yóbbu këram góor goo gis mi ngi wut lu mu yóbbu këram te loolu moo yor réew mooy jug di entreprendre jug di liggéey ngir yóbbul sa sa kër parce que nag boo ko deful du ministre moo la koy yóbbul du député la koy joxal te keneen du la koy joxal muy góor ak jigéen jug wuti dafa doon lu am solo looloo yor réew mooy koom réew nag bu buñ ko bokkee ci yooyu yëpp dañ koy organiser dëgg nag fekk nañ fi benn loo xamante ne nii noonu la réew mi di doxe mooy nit ki ni mën nga ñëw ci ab yoon nga wut foo toog di def sa activité économique. te loolu lu ñuy encourager la ci ci koom bi mais nag réew faw ñu dañoo ñun ñoo woote jub jubal ak jubbanti mm. te li ñu war a jubbanti mooy yu mel nii ndax marché bi ku ko gis gis caniveau bi ni mu bloqué. gis oto yi mënuñoo jàll nit ñi mënuñoo circuler yéen ñi bëgg a liggéey mënu leen a liggéey parce que liggéeyu leen ci jàmm. lii mënut a continuer te mënut a may ma lii mënut a continuer te mënut a continuer pour kenn ndax suñu continuer di fatt suñu kanaal yi fii kenn du fi dëkk suñu continuer di jaayee nu nu neex jaayee kenn dootu fi dëkk bu ñu continuer tam insécurité bi fi am kenn du ñëw di jënd donc organisation la laaj. organisation boo gis nag lu ñuy xalaatee la lu ñuy waxtaanee la di ngeen ko ni ngeen ko président premier ministre waxee ba demee Colobane defaraat organiser lu war la mais lépp dafa war a am planification ak accompagnement bu muy àndal. donc dalal leen seen xel li tax tey ñu ñëw fi bëgg a teg suñ bët marché yi ni mu organiser wu ak jafe-jafe yi ñoo ngi. càmbar ak di xool yan solution la ñuy andi pour que képp koo xam ne bëgg nga liggéey nga am foo foo liggéeyee problème mu marchand ambulant yi projet problème mu problème table yëpp benn problème lañ am mooy dañoo bëgg liggéey waaye amuñu fu ñu mën a toog liggéey loolu mooy seen problème problème mu espace lañ am. xam nañ ko keroog waxtaan wi leeral na ko ñoo ngi ci wut ay solution wax naa ko sànq bëgguma nag di wax loo xam ne paree guñ ko parce que ba ñu àndeek premier ministre ak léegi daanaka matul ñaari semaine ñoo ngi ciy liggéey dans mois de quarante cinq jours incha allah dinañu génn information ni lii lañ fas yéenee def ci fépp foo xam ne nit ñaa ngi fay dajaloo di liggéey organisation bii lañ fa bëgg a teg ñëpp déggee ko ñëpp gisee ko noonu te ma lay jaajëfal encore une fois ci réew mi nga bokk li nga def loolooy li war. li la naqari nga génn ñëw wax ko ñu dégg ko wax la lu ñu mën a dégg ñu waxtaan ci jëmee mu jëmee kanam jaa ngeen jëf. may wax ñaar baat mu egg loolu loolu loolu mënuñ koo leeral loolu mënuñ koo leeral. monsieur le maire la yii lan la. waaw dëgg la yow sax boo fa ñëwee nga wax ñaar baat monsieur le ministre. Mhm. li may wax mooy dañuy sant yàlla di julli ci yonent bi journée bii day journée bu am solo soxna suñu dal la jaajëfal ñun ñoo woote jub jubal jubbanti fii ku ñuy xoqatal tere la wax sa xalaat amu fi dañoo wax suñu xalaat ba jot ci réew mi li nga wax dëgg nañ ko monsieur ministre ñi ngi wax Touba ñaari problème lañ am mooy problème mu ak problème mu ndox mu nit ñi naan mais Touba ëpp na loolu. soxna si ak ay junniy moroomam lii ñuy def nii ci lañ yor seen kër yi. Mhm. ñuy wax président Bassirou Diomaye Faye dina yóbbanti ci woon dina ko wax ci premier ministre nañ bàyyi bi mooy marché bi ëpp lu ñu visité ci Sénégal quatre vingt pour cent ci ñi fiy ñëw di liggéey si lii ñu def nii ci lañ yor seenu njaboot. Mhm. kon soxna si ñu ngi lay jaajëfal. di wax ne marché bi lii ñu fi gis kenn mënu ko xalaat kenn mënu ko accepté il faut que état bi jël ci ay responsabilités am ànd ko mairie bi ndax nii marché bi salté nii jéggi na dayoo. mbir yi nag état am na ci responsabilité mais problème comportement it ci la bokk. Mhm. kon il faut que nit ñi nangu ñu organiser leen. kon il faut que nit ñi nangu ñu organiser leen monsieur le ministre direction bi yorul wàllu marché yi. Sénégal am na direction boo xam ne li ñu ko dénk mooy mu seere wàllu marché direction boobu kuñ ko laaj ci waa Touba doo xam ki ko yoroon nan la tudd parce que deful liggéeyam. ndax bu ñuy wax direction bi yor wàllu marché yi yaakaar na marché Ocass bii dara li mu war a a jiital ci la bokk hmm. te ku gis marché Ocass bii ni mel kenn mënu ko accepté hmm. Touba am na projet marché boo xamante defoon nañ ko muy projet marché ngiraa neen bi hmm. depuis jamono Abdoulaye Wade ba léegi marché bi bougé wul kon il faut que ñu xam président Bassirou Diomaye mu ñëw xool marché boobu lan moo tax bougé wul ndax dañ ne woon dañuy toxal marché bi yóbbu ko ci marché ngiraa neen boobu bu ñu joxoon marché bi xam na xaalis fu mu dugaloo il faut que ñu audité ko kon li ñu war a jubbanti ci Touba bëri na mm-hmm. mooy li fi dugal ci xaalis ci ay milliards bëri na mm-hmm. ba lañ fay defaat dara nañ audité xaalis boobu fan lañ ko dugal li ñu fa war a def ñu defar ko ndax mënuñoo continuer yii nag pratique yi vraiment lii dafa jéggi kon soxna si ñu ngi lay jaajëfal courage bi nga am ba wax sa xalaat di wax ne képp ku am bëgg wax sa xalaat ci dëkk bi na nga a jubbanti jubbanti ko aca mbokk xam ne président moo ko initié ñu nekk moom fii ci Touba ñu bàyyi mu dellu ci bis bi nga xam ne ñu ngi ko amal monsieur le directeur ñu ngi leen euh, jërëjëf di nuyu waa Touba yëpp nuyu waa Sénégal yëpp di am mbégte nag teew fii ndax euh, président de la république dafa woote ay journée set setal euh, mu am am njàngan bu rëy mu nekk ci ginaaw wax sénégalais yi ne liñ moomal suñu bopp ñoo ko defaral suñu bopp dëkk waay bokk ci cadre de vie bokk ci euh, fu mel ne Touba nag ak dëkk yu bëri ci Sénégal am problème mu assainissement am problème inondation amaana incha allah rabbi le président Bassirou Diomaye Faye li mu diggoon Sénégalais yi dinañ ko def mooy fexe ba liggéey leen ba nga xam ne dinañ jooyanti fexe ba bu ren bu ñëwee mu bañ a ci population yi thème yi ñu jël nag ci set setal yi dañ ko jëmalee ci wàllu ci wàllu assainissement fii ci Ndamaatu nag nekk zone boo xam ne ci biir Touba ñëpp xamee nañ ko taa ñëpp xamee nañ ko ndox ñu def suñu choix ñëw fi fexe ba nettoyer bu baax dindi salte yi nit ñi aussi defal ko seen bopp ndax bu ko defalee seen bopp aussi dañ xam ne fii ñoom seen jëf la waruñu kaa taxal waaye tamit sensibiliser ci li nga xam ne amaana moom la ñu war a entre euh, defee entretien ci ci ci canalisation yi muy engagement xam ñëpp tee nañ ci muy euh, le préfet muy le ministre muy les députés mais également ñi nga xam ne ay militants lañ waaye tamit nekk ay ay am yéene ci ci li ñuy def teew nañ ci muy mbégte mu rëy rëy ñu nominé la lu yàggul dara tey jii nii biñ la nominé léegi gisuñu la fan nga nekkoon ak sa nomination VS boobu lay wax askanu Touba lan la ah, xanaa nekk di installation rek ndax euh, nomination responsabilité la te buñ la yóbboo ci bërëb duñ laa liggéeyloo bala ngaa liggéey nag foog nga xool la fa nekk ci yitt yooyu lañ nekk rek mais lépp rek euh, sénégalais ñoo tax ñu nekk ci incha allah